asalaamaaleykum maa ngi tudd euh, Jacques Diouf sama grade sergent chef la donc maa ngi fii ci musée des forces armées tey nag waa groupe scolaire franco arabe euh, Zeynab Zeynab Kazalik dañu dañu ñëwoon fii visiter ak seen xale yi donc bi ñu ñëwee visit bi ñu leen defal fii euh, teeru nañ leen wan nañ leen vraiment tirailleurs sénégalais yi histoire yu tirailleurs sénégalais yi fii wax nañ leen li wan leen ay film wan leen ay mannequin ñu xool li tirailleurs yi def waaw fi ñu jaar se wax leen seen i jaar-jaar raconté leen ko wan leen leen tamit euh, loo xam ne ci symbole si les symboles de la république la bokk symbolique nationale tel que ay décoration ay médailles yu leen wan ay médailles militaire ay médailles civiles wan leen euh, médailles yi nga xam ne mooy euh, yi ñu gën a euh, raaya yi nga xam ne moo gën a kawe ci Sénégal maanaam muy ordre national du lion ak ordre du mérite wan nañ leen wax nañ leen tamit drapeau bi lu muy jëriñ lu muy tekki lu tax ñuy wax ni symbole la wan nañ leen ancien auto président yi nga xam ne Senghor utiliser na ko le président Senghor utiliser na ko président Diouf utiliser na ko président Wade tamit utiliser na ko même président Macky am na bu mu ci utiliser voilà ak wan leen tamit expliquer leen tuuti lan mooy casque bleu tey lu tax ñu di leen ñu expliquer leen lan mooy casque bleu ndax dafa am euh, benn officier sénégalais boo xam ne tey mën nañu ne héros la de dimension internationale ndax officier sénégalais boobu muy capitaine Mbaye Diagne dañu bëgg xale yi di ñëw di visiter musée pour ñu mën a xam histoire am mën a xam ni waaw Sénégal ñàkkuñu fi ay ay héros ñàkkuñu fi ay nit yoo xam ne def nañu lu rëy si àdduna bi ba ñu ma war a mën a wax seen jaar-jaar te capitaine Mbaye Diagne boobu ci la bokk moom Rwanda la demoon foofu mission Rwanda donc foofu la defee lu rëy loolu waaye yàlla def tamit fa la ñàkkee kanam waaye teewul tey mën nañu élèves yi nga xam ne day ñëw di visiter ñu wax leen jaar-jaaru capitaine Mbaye Diagne boobu donc je me présente je suis le sergent-chef Jacques Diouf je suis du musée des forces armées donc ce matin nous avons reçu le groupe scolaire franco-arabe Zeynab Kazali qui sont venus visiter avec les élèves de la petite moyenne section et des élèves du primaire aussi jusqu'en classe de CM2 donc on a eu à leur faire la présentation des expositions au niveau du musée telles que euh, un extrait de la symbolique nationale, à savoir les décorations dans les ordres nationaux, des médailles militaires et civiles. Aussi, on leur a fait la présentation de l'historique du musée et de l'histoire des tirailleurs sénégalais. Donc des tirailleurs sénégalais qui ont à la Grande Guerre, à la Seconde Guerre. Donc des origines en passant par les soldats lapto jusqu'aux tirailleurs sénégalais qui ont participé à, à cette Grande Guerre. Et en plus, On leur a montré aussi les anciens véhicules de commandement présidentiel. Alors pourquoi je dis véhicules de commandement présidentiel Le chef suprême des armées étant le président de la République, donc son véhicule, pour nous militaires, est considéré comme un véhicule de commandement. Donc les véhicules qui par le président Senghor, par le président Diouf, et par le président Wad et même utilisé par le président Macky Sall. Donc ils ont eu à visiter ce musée qui, rappelons-le, est un lieu public confié à l'armée. Mais il faut toujours retenir que le musée des forces armées est un patrimoine national qui a besoin d'être découvert par les populations. Parce que c'est une histoire qui nous intéresse à tous, puisque ça parle de l'histoire des forces armées sénégalaises.